tey ñu initié débrayage journée noire pour affaire Bassirou Mboup lan ngeen di wax ci débrayage boobu. waaw déjà lii comme l'année passée tamit noonu la defoon da ñëw toog njëkk saa prof génn yooyu noonu en plus bâtiment da ngay toog ay affaire yu toj yu kenn xamul daal moo loolu en plus da ngay jëkk saa comme comme grève yi da ngay saa ñëw toog déjà prof ñëw ne devoir surprise fekk ni moo loolu jàng suñu leçon. xam nga compo itam noonu la dañuy jeg saa ñu no compo composition jege na tey dèjà ah, ah, defuñu cours arrêté cours 9h en plus am nañ lundi devoir commun xool loolu tamit xam ak débrayage ni duñu arrange quoi ñun tamit élèves yi foog ñu jàpp si tamit. l'heure c'est d'accord yaa ngi wax sànq ci devoir yi dafa mel ni sama question bi mu ñëwee yow sa jafe-jafe bi nga jànkonteel nga commencé di wax est-ce que mun nga cee revenir aat parce que loolu duñu arrangé parce que l'année passée tamit noonu la am nañu bëri ñoo xam tamit loolu moo tax ñu redoubler parce que tam grève ñu doon def ak grève temps bu ñu toog jàngu jànguñu loolu tamit day joué njëkk saa yi ñëw waat da ngay ñëwaat gars yi dañuy ensonné comme nii da ngay jeg saa ko prof boo xam ne dañoo ensonné programme te loolu tam du ñu arrangé imagine benn prof ñëw teg ñëw ne leçon expliqué mën explication sax du leer bind ko moo la dem yoonam a cause de guerre yi cause de grève yi xam nga loolu tamit baaxul loolu du ñu arrangé noonu la demee quoi. école dafa nekk seconde famille ci élève muy jàng si tey école bi nga xam ne yéen a ngi fiy jàngee seen relation ak prof yi nan la fa demee doon relation boo xam ne bu am respect la bu ratax lu leen fii indi mooy seen intérêt moo ngay jàng wala dafa nekk relation boo xam ne da dugg ci classe mais da ngay am envie cours bi jeex nga génn dem sa yoon. waaw parce que ñu nag professeur tamit waaw parce que ana yenn professeur yoo xam ne dañu déjà dañuy ñëw classe. ak euh, ak élève am comme grève ñoom da ngay ñëw benn prof toog ñëw def benn cours explication du leer tamit te wala yooyu wala nga def benn affaire dañ naan da ngaa réew dàq la nga génn tamit lool tamit en du ñu arrangé même pas professeur bu ñëwee toog expliqué ko benn explication boo xam ne leerul ñu am nañ droit ñu ne ko monsieur on ne comprend pas tamit mooy loolu après mu revenir waat mais du def day ñëw di jaayante mooy lool xam nga tamit loolu baaxul xam nga professeur daal ñu nag ñoom daal am na yenn professeur yoo xam ne daal dinañ demante ñu mais am ne ni ñuy jàngalee franchement baaxul su ñun waaw. na des professeurs yoo xam ne modèle da ngeen di kontaan di assister seen cours da ngeen di da ngeen di yàkkamti sa cours bi ñëw ak aussi matière bi nga xam ne da def. si am na am na am na cours yoo xam ne da ngay faral def cours parce que dañuy ñëw franchement parle da ngay ñëw def cours nice nga def ko mais imagine ne am na benn cours l'enfant passe bu ñu daan def économie. dèjà ku waxoon deux heures de temps la te quarante cinq minutes dañ ko def xoolal loolu si effectif bi day ñëw taw xaaj classe bi ne quarante cinq minutes te quarante cinq minutes sax matul xam ay vingt ay vingt minutes xam nga la taxaw jeg saa génn classe bi tamit loolu tamit baaxul donc foo ñuy sóoraal élèves yi ku te foo yi nii ku deux heures euh, devoir deux heures temps la ci def. devoir surprise moom élève daf ko mës a bañ. Mhm. mais du devoir surprise du devoir surprise. mais tamit avant avant fête la da woon devoir nañ ko mais bu ko na ko def euh, devoir deux heures temps mais même pas mu koy def comme ay devoir ay quarante cinq mille yoo di xaaj classe bi loolu tamit baaxul. Mhm. loolu tamit moo ñu métti quoi foog ñuy sóoraal tamit ñun parce que ñun mooy loolu ñun ay avenir lañ dañoo bëgg a réussir yooyu noonu mais imagine kon ñu ñëw nii grève ñëw ni instant yi nii wàcc nañ. léegi lan la ñuy defaat liggéeyu ñu gontuñu lan la ñuy defaat xanaa taxawaa waa dara. tamit loolu arrangé wuñu ñun fu ñu ñëwee école pour jàng moo tax ñu ñëw ko mais pas pour taxawaalu te foo ñuy sóoraa tamit ñun élèves yi tamit moo la dañoo sonn si tëdd bi dañoo ñëw fii pour jàng mais pas ñu ñëw di taxawaalu ok. dañuy ñëw pas pour taxawaalu dernière question est-ce normal tey benn élève ànd ak parent wam ñu ñëw di attaquer benn prof boo xam ne daf koy jàngal parce que seen lii sa la xewee. non amul droit loolu amul benn professeur bu am droit ñëw di wax benn professeur parce que loolu jigéen si ñoom. si ñëw si si kaw la si kaw la jógee mais amul benn propre euh, amul benn bu am droit dugg si affaire ñëw foofu noonu la. bi nga xam ne am na tey. ah métti na trop parce que tamit dara neexul tamit nga yow ah nga jóg 6 euh, heures du matin préparé pour jàng nga ñëw ba classe te doo def cours loolu tamit dafa metti parce que du ñu du ñu xëy 6 heures du matin sang ba seen ñëw de ñëw ñëw pour def cours. te duñ def cours tamit dafa metti tamit ci xool dafa metti trop. dafa metti tey lan ngay wax parce que tey bu ñu xoolee école publique wala école yi bu ñu xoolee internat yenn kaay yi nga xam ne dañ koy gis ci école publique yi duñ ko gis ci internat yi parce que ci école publique yi rek la ñuy gis professeur door nañ ko ci école publique la ñuy gis ne professeur rey nañ ko ci école publique la ñuy gis aussi que professeur menacé nañ ko est-ce loolu euh, élève bi rôlam la wara sax parent d'élève bi c'est rôlam la. doolu élève moom. élève moom da nga war respecter say professeur de même que aussi professeur tamit dafa war respecter élève am parce que le respect est réciproque professeur wul élève kon élève mënut a respecter professeur parce que suñu ay parents bu ñu bu ñu respecté wul ah euh, ta doom di nga am dina dina am nu muy réagir donc kon man man pour man ah professeur moo war jox cër élève am yi après élève bi delloo ko mais xam nga rek jàng léegi moom mooy loolu élève dañoo dañoo indiscipliné lu leen neex la ñuy comporté te loolu tamit day métti professeurs yi loolu rek laa am lu ma ci tamit aussi euh, dañoo war a gestu tamit ñu ñu nekk école publique dañoo war dañoo dañoo war di gestu. est-ce que nekkul est tey que élève bi ak professeur bi dañu xaw a yem. dañu xaw a yem ci taille dañu xaw a yem par exemple ci benn euh, benn niveau entre guillemets ba élève bi tey ragalatul ndaxte bu njëkk ba dañ doon gis ne yow élève boo gisoon sax sa prof ci benn mbedd dangay daw doo bëgg mu gis la ndaxte boo leen tasee école mais dañu dem ba instant bi ñi nga xam ne élèves bi dañu ñeme professeurs yi pour yow loolu lan moo ko waral ba yenn kàddu yi ci seen ci seen comportement la wala ci la dama yaakaar ne lépp ah ci yar bi la parce que sa doom am na noo koy yaree sa doom am na noo koy yare yaakaar naa ne bu ñëwee bu ñëwee sax xam nga bu njëkk ba suñu yaay yi daaw ñu nangoo sigi di xool seen professeurs yi parce que loolu ci yar bala la mais léegi yarum léegi la te yaakaar naa ne sa professeur même tey jii boo leen tolloowee mais seen xam-xam mënu ñoo tolloo te képp koo xamante ne ah daf lay jàngal da ngaa war doon ci moom taalibe parce que am na xam-xam boo xamante ne pour mu jox la ko il faut nga respecté ko jox ko cër mais tey boo ko joxul cër joxoo ko respect mënut a mun mënu laa jox tamit xam-xam ba tamit dañ cee war a wax xam bi tamit danga mënoo mun mënu la koo jox tant que yow respecté woo ko. Hmm? niveau bi niveau bi waaw ça va wax dëgg fa nax yàlla moom nous avons des excellents professeurs Limamou Laye nous avons des excellents professeurs mais aussi bâtiment yi parce que nu sommes en danger nous sommes en danger nous sommes en parce que les batiment ne sont pas yi lan moo ci nekk. batiment yi dafa baaxatul baaxatul. tey ñu revenir ci seen cas bi xew ci seen lycée yëg nga ko. lycée bi waaw yëg naa ko waaw waaw. loolu moom aw ma ci benn information. am dama dégg rek ñu ne dañoo benn élève moom moo menacé professeur am loolu laa dégg mais man awma ci benn information plus mu ngi fi door a xew. ah man na sama première année mais maa ngi koy door a dégg maa maa ngi koy door a dégg. a ah, métti na trop parce que yaakaar naa su professeur waroo koo menacé mais aussi professeur bi lan la war loo xamante ba élève di ko menacé parce que tamit nit du jékki-jékki rek menacé nit sans raison. ah nit tamit du jékki-jékki rek menacé menacé nit raison. ok merci. moom doo ma ci may. ah ma meelaw. bul wax dara après nga jaar. waaw waaw noonu laa ko sentiré quoi. Moussa Aydara. Moussa Aydara. seconde. damay rebondir rek juste euh, sa camarade bi fi mu chuté. parce que mu ngi naan ne cas bi fi am ba ñuy menacé ki nga xam ne mooy professeur bi te bi muy ñëw dafa ànd ak waajuram bu jigéen ak frère am elle s'interroge professeur bi lan la ko war a def est-ce que cas yu mel noonu dafee am wala it yow bett na. a ah, man moom maa ngi koy doog a dégg nag de maa ngi doog a dégg cas mel nii fii mais professeurs yi tamit dañoo mun tooñ de professeurs yi dañuy yablu élèves yi quoi ah da ngay ñëw des fois da ngay ñëw. prof di la wax loo xam ne mooy waru la ko wax affaire yooyu élèves tamit am na élèves yoo xam ne ñoom ñëpp yemuñu mun nga ko wax dara mu yëg ko boo wax la loo xam ne dalay lay metti loolu fa demee. écart de langage day kon seen diggante yéen ak. loolu la fa des fois mun nga wax ak prof mu lay wax ay wax yoo xam ay comme maanaam mun nga dëkk ay gunaas maa la yow fi nga dëkk affaire yooyu noonu te yow loolu yow buñ la ko waxee mun na la metti après mun nga ko def loo xam ne mooy loolu loolu fa demee. koy wax sa moroom yi élèves yi nga xam ne tey bu ñu génnee yenn image yoo xam ne dafa ñaaw ci sa ci ci ci élève ñu naan élève ak professeur jote nañ élève dóor na professeur wala sax élève menacé na professeur. ah élève moom warul dóor prof moom koo xam ne moo lay jàngal moom def si yow xam-xam waroo ko dóor de man moom loolu laa gis quoi. ah ma wax élèves yi ñu def attention si professeurs yi rek professeur dafa garaaw quoi mun na la yàqal lu nekk.